يا سيدي يا رسول الله شفيعنا يوم asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balaax di leen balaax di leen jottali xew-xew bii nga xam ne si ñoo ngi koy amal fii ci Treviso muy gàmmu sëñ Babacar Sy radiyallaahu taala anhu ñu di ko amal di ko fàttaliku di ci invité ñëpp nag tiijaan murit xaadir laayeen képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah moo xam nga nekk ci diaspora bi moo xam nga nekk foo mënta nekk ci àdduna bi ñoo ngi lay invité ñu ngi ñu ngi lay invité ku munta teew it nga teew ci xol nga seetaan ko ci net bi ñu ngi lay invité fu waay mënti nekk mu ñaanal ñu suñu sëriñ yàlla na sam boroom yokku leeram te taas ñu ci barkeem at mu jot ñoo ngi koy màggal fii Treviso mi ngi gën a mi mi mi ngi gën a màgg yàlla nañu ko yàlla euh, saxalal te ñuy invité ñëpp ma jox sama vice président mu wax leen programme mu guddi gi ni muy tëddee incha allah invité nañ ñëpp bàyyiwuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa mbokki julli ji ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare gannaaw bi suñ président waxee ba noppi ñi ngi am mbégte di teewaat ci jataay bii yal na yàlla def ñu yàgg koo teewe te lépp liñ ci seenu si yiw yal nañu ko yàlla yombalal ak ñu bokk ko bépp jullit ci balko yonent bi sallallahu alayhi wa ah programme bi nag incha allahu rabbi samedi le 30 mars bu ñu xëyee danañ fa jàng alxuraanul karim 10 heures ba 14 heures incha allahu rabbi buñ paree danañ fa xewlu añ buñ añee ba noppi dana am cérémonie officielle 17 heures autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci Italie danañ fa teew ak autorité yi nga xam ne ñoo jógee Sénégal danañ fa teew suñu paree incha allahu rabbi ki nga xam ne moo ko war a animé di koy jàng El Hadji Dund Kenn Mbay ak Sam Mbuub comme niñ ko daa defee chaque année ñu ngi oo mbokk julli ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn bàyyiwuñ fenn nañ ko daa defee fañ ko daa defee nag sensé na ndax dañ am nañ saal boo xam ne ab stadium la képp ku daa am problème mu place ren na nga ñëw incha allahu rabbi te xam ne ren boo ñëwee saal bi incha allahu rabbi beneen saal la boo xam ne maanaam sëñ Babacar donc ko mérité kon nag ñu jox Ilimaan Gueye mu sant si akaddu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aousu billahi min saan rajim bismillahi rahmaani rahim xaalu subhaanaka laa xilma lana illa ma xalamtana innaka anta alimul hakim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan xew-xew bi ñu jublu yan na yàlla def ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin xew-xew bi nag ni muy tëddee rek mooy ni mu daan tëddee lay tëddee ñi ngi koy def ci ndigalu xalifa général di Tijaan Cheikh Ahmed Tijaan si Maptoum di ñaan yan na yàlla saxal ko fi mu sax fi sax gu wér defal ko fi lu kawe njort di ko defal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp ñi ngi leen di wo itam itam ci xew-xew bi nga xamne bi moy guddu guddii guddi al khalifa radiyallahu taala anhu ñu koy def fi ci Treviso ci dëkk bu ñu wax Colignano salle bi mi ngi tuddu Sopas Arena e nim dan tëdd nak moy ke fi ñew moy Cheikh mohammedou Mansour ibnu mam Dabbaax radiyallahu taala anhu di andak ak si Jamil di andak batay ba Habib si ibnu sëñ Mansour si borom daraji di andak batay Omar si ibnu sëñ Mustafa si Jamil animateur bi mom comme niñ ko baxo def rek nyengi kenn mbay mokay animer ñi ngi wo ñepp rek bawuñu kenn fépp fu jullit nekk ñu ngi lay woo fii ci dëkk bi di Treviso e, di la dalal jàmm di ñaan fépp waay jóge yàlla na yàlla def nga agsi ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah aousubillahi min asheytan rajim bismillahi bañ sant yàlla di jullit ci yonent bi salallahu alayhi wa ñu ngi nuyu mbooloo mbooloom yëpp ku fi teew ak ku fi teewul di wax ci tut ci gaay yi ñi nga xamante ñu ñoo ne pour ma waxal leen tey jii si wàllu anniversaire bi di war a ñëw di nekk si samedi bi incha allah rabi bi bii nii di ñëw ñu ngi woon a xale yëpp ñu ngi woo góor jigéen mag ndaw ñëpp rawatina ñuy nekk fii itali muy xale yi nga xam te ñoo nekk fii si itali bi yëpp ñu ngi leen di woo incha allah rabi si samedi bi ñëw jàpp ak ñun ci liggéey bi ci barke Mouhamed lu waaye def nag yàlla na la ko yàlla fay ci barke Mouhamed te yàlla na yàlla def ñu koy fekkee ay ati at lépp lu ñu man ren yàlla nañu mën déwén lu ko ëpp ci barke Mouhamed ñu ngi fàttali ko di woo xale yëpp fàttewuñu kenn képp ku ñu limul nag amul problème quoi ñu ngi woo ñëpp mu neexee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaan la hawla wala xawata illa bilal azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taali bi mbokki àdduna bi yëpp ñu leen di nuyu kenn ku nekk ci turum ak santam di leen yëgal suñu journée anniversaire suñu maam sëñ Babacar si radiallahu taala anhu ak suñu maam Mansour radiallahu taala anhu ak njabootu Seydi Hadji Malick yëpp ñu ngi leen di woo ci journée bi ñuy def si trévision le 30 si Sopaz Arena Conegliano ñu ngi woo daayir yi nekk biir Italie yëpp ak yi nekk France ak si diaspora bi yëpp ak waa Allemagne ñoom tamit daawuñu ko manqué ak waa Espagne yëpp ne si ak waa états ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal di wax waa Italie tam képp ku daan am jafe-jafe si toogaay comme ni ko suñu vice président waxe xamal ni sa jafe-jafe jeex na ndax saal bi moom tabaarkàlla macha allahu taala kon bu kenn am jafe-jafe si ñëw pour ndax say tànk day metti wala toogaay bu xat wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. comme ni ko mbokk yi ma jiitu waxee rek man ci wàllu administration bi laay wax euh, ñoo ngi koy yëgal euh, président de la république ak Abdoul mbay ak gouvernement Sénégal yëpp euh, di ci invité autorité sénégalaise yëpp surtout sunu ministère de tutelle muy madame Seynabou Gaye Touré d'ailleurs sax moom ci marine yi la bokk quoi moom lañ tuddee bokk na ci nga xam ne moom lañ tuddee guddi gi donc euh, ñoo ngi ko yëgal tamit euh, responsable politique yi nga xam ne responsable parti politique yi nekk si Italie yëpp ak diaspora yëpp ñoo ngi leen te ñu teew seen ay parti politique ñoo ngi leen ko yëgal euh, événement bi nag mi ngi am Conegliano Zopas Arena la stadium bi tudd Viale dello Sport numéro 2 événement bi tamit dinañ ko def en direct si site bu ñuy wax yi point org mooy surtout tarixa kër gi asfiyahi point point org fi lañ koy defalee événement bi en direct incha allahu taala kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla niñ ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génne ak alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli ci sunu yonantu bu sell bi Seydou Wudio sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa Italie yëpp nuyu monde bi yëpp rawatina jigéen ñi di leen woo ci sama turu daayira woote bi nag ma jiital si jigéenu Treviso yi ñu bokkal soxna jaara ñu ñëw niñ daan def ni ñu dëkkeek ñoom rek ndax ñun ñoo bokk lépp jigéenu monde bi jigéenu Europe rawatina jigéenu Italie jigéen ju ci daan xalaat toogaay bu xat ren yàlla jàppale nañu ba loolu du am incha allah yàlla jàppale nañu ci sëriñ barki sëriñ Babacar si ba lépp luñ doon tiir ci xataay ren yëpp dina yaatu ñu ngi ñaan ngeen ñëw jàpp ci bis bi ku ci jàpp sa bopp nga ci jàppal ba lépp rafet ni mu daan def ci barke Serigne Babacar